بنين وحفدة خاصة ويا تلامذته المتعلقين به عامة أسلم عليكم سلاما حسنا مباركا وأحييكم تحية طيبة وأشكركم شكرا جزيلا من جبوتك الشيخ بفاتي دومي أكسجي yéen taalibe yu aju ci moom maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen jottali nag ndigal lu jóge ci sëñ Abdul ci man ma war leen koo wax mu bokk ko jëf ñu am ba mu mel na wax ma noonu toolam yooyu nga xam ne noo ko gorolan noo ko ko gorolan dugub jami fooyee juróomi téeméeri hectare la mu bëgg mu góobal ko ko te it mu bëgg balaa màggalu daal xudus gi dikk ñu góob loolu moo tax sët yi ak taalibe yi fu ci waay mën a nekk góor ak jigéen mag ak ndaw ñoo ci pasteur te defal ko ko ni mu ko bëggi mu ngi ko jàppale nag alxames bi fukk ak juróom-ñett ci weeru Tamxarit yi waaye koy dem nag dangay fas yéene fanaani ci bésub àll boobu di fukki fan ak juróom-ñaar bu ñu xëyee rek ñu liggéey liggéey ba ba mel na mu bëgg te it na ngeen def ko na ngeen ko daa def ngir mboolem liggéey yéen weesu ñëw ci boo xam ne dikk ngeen doo xam ne dara des na fa lii mu mel ko te dajale ko fi benn barab soo ko faa jóge mu yewi leen ngeen dikk te ngeen am ci pas-pas bu baax te xam ni ah, taalibe moom liggéey dafa am solo ci moom ndax al iradatu sadiqatu ni ko sëriñ bi waxe mooy taalibe gu dëggu mu ngi amee ci yet mooy lim ne poobali abdin muridin saadiqin lahu bi xidmatin aw bi xubbin aw hadiyaatin waaye liggéey la ji la jiital sax mu ngi jëkk a tudd yett yooyu ci la murid moom rek kon bari na waaye moo di saadix la wax mu ngi am ci yett yooyu kon nag liggéey ba am solo ci moom la ah, te it borom dëkk bi nga xam ne moo tax ñu dina ko sant loolu ca la nekkoon ak sëñ Touba dégg naa ci làmmiñam mu ne sëñ Touba wàcc na ma bu dul benn du ñaari ci loo xam ne da ko bind jox ma ko wax ma ko ci làmmiñu waaye mosuma nangoo wàcc kon nag ñi nga xam ne ñu defaguñu dara ñoom bu ñu la joxee ab liggéey war nañ caa góorgóorlu am na it loo xam ne waxoon naa gu ko ci liggéey yooyu ñu yooyu ñu weesu woon noonu naa kër gi daal nu mu def suñu siaar moo di lu la nga xam ne moom la borom daaru waxan ba ko sëñ Tuubaa di sëñ Tuubaa sanc ba dafa rëy lool te muy jamono joo xam ne xeex bu njëkk ba ne dafa jeex ca déwén sa rek mu sant ko ko mu di ay kër yu war a liggéey ci Touba ndax yaari kër la yoo xam ne dañuy dend te waaye duñ jotee duñ jotee dara bu ci ne day am këru boppam lay doon ak baraagi boppam yem bëgg mu def ko ci mu wax ko lim ba ak nañ koy liggéey ñu dend ko defee mu santaat daaru xuddoos santaat daaru bogis sëñ soxna bu nekk santaat daarul mina wax ko it ni ko boo demee mboolem Tuuba suuf si féete woon kaw na féete biir nga xam ne ñëpp dañuy toog fi suuf di fàkk nga jot kekk la def ko ay jël mu gas ko dugal suuf si ci biir ba tolloo ci foofee nag am kilifa gu dikk goo xam ne da ko wax ne ko réew mi day seng amu ci ba mu demee mu ne diw de xanaa ndax maa xamul xamul sëñ Tuuba ndax sëñ Tuuba lu mu bëgg dana am te man lu mu digal dinaa ko def ma ne leen nag kër gi mën mën def loolu yi mooy sunu màndal mooy li ñuy wax acharabu loo xam ne ko fi nekk sëñ Tuuba lu mu wax lu mu bëgg nañ ko ko defal lu mu wax it nañ ko def loolu loolu la waxal boobee kon nag loolu ku fi nekk rek na nekk ci loolu lu mu bëgg dana am lu mu digal danañ ko def ah, te itam taali bi dafa war liggéey bu dikk muy defee ne lam doon wut ak lam doon bëgg lépp mu ngi ci biir liggéey ndax kuy wut loo xam ne xamuloo fu mu nekk te mu gën lépp danga koy làmbutu fu nekk waaye di wax naan di naw sa jëf te naw jëf baaxul al ojbu ndax iblis ñaaw jëfam ak defe ni moo gën aadama moo tax bañ ko nee su jootal ci aadama su joot leen ci aadama yéen malaayika yi mu gàntu benn su joot boobee rek ci lañu ko dàkkoo génne ko kon taalibe bi itam mën naa xamee ca loola ni bu jóg dafa war a defe ne lii lam doon wut ngi ci mu wut ko ca loolu am na it loo xam ne ñu bari dañu koy wax di di naw seeni jëf te ji yaar da cee nekk amaana ñu bañ ko nangu naawuzu billah amaana ñu nangu ko ba noppi nga def loo xam ne da ko yàq loolu yi soo mu di wax wa rubbama ibadatun qad afsadatha lahwatun xaqira bari ana jaamu yàlla yu bare bare nit def ko seen ngenn ko su tuuti rek yàq mboolem la mu defan kon defe ne li nga defan ma nga fa xam lu ma nga fa am déet mën am it ay gaaf yoo xam ne dañ la koy topp te loolu mën ngeen koo xam ci àdduna si am nga lu bare bari waaye ñu ngi lay topp lu ëpp loola ñu def la li ñuy wax sesir def la li ñuy wax fayit mu lay wax noonu almufallasoona almufallasoona dana am dana am àllaaxira ngay dikkal yu bari waaye fekk rey nga lekk nga àllali kii jëw nga kii rambaaje fab yooyu nga amoon yépp jox ko ko ne toj bu dajut bari nga war a fab nag bàkkaar yi ñu wàññi di ko saf ndax foofu wurus sa xaalis amu fa li ngay fayantoo mooy jëf rek kon daal di defee ne rek li nga liggéeyal sañ bi li nga jaamu yàlla ak loolu lépp nga fa xamul na lii nga ci xamul na nangu nañu ko mu déet xamul na def nga lu ko yàq moo tax jëf motul naw te it Ah, ku ko seetlu sa xam ne adduna sax ku ci bëgg teraanga da ngay nangoo liggéey nangoo jëf waxuma la àllaaxira ki nga xam ne boo demee loo fa yóbbaale wutoon doo ko def kooku moom waru laa noppalu rawatina ci nag taalibe yi di wax ne man de ah nii laa def liggéeyal naa sëñ Tuubaa nangam fekk naa ko jëloo dem naa gànnaar def naa nii ki na mu ngi dikk njaareem nii ki wala maam Thierno day man ba mu nekkee dëkk sàngam bu nekkee daaru man naan ba mu nekkee Mbàkke Kajoor bu mu dikkee daaru nangam nag di di nga def wala nga di ko wax ci sëñ Modou Moustapha mu laa def ci moom di ko wax ci sëñ sa jëf la te xamul a jëf ji nangu nañ ko mbéet xamul ne def nga lu ko yàq bu dara nekkatu fa am déet naawuzu billah kon bu leen naw jëf lu lu yëkkati ko rek te jóge ci ndigalal ka fa nekkal Sëñ Tuubaa na ngeen defee ni la ngeen doon wut lépp ngi ci lii ngeen wut ko ci te gis nga boo demee ci taw Tawba si dafa am benn xare boo xam ne dafa naa ne moo di xasuwatu Tabuuk ba ci yonent bi dem dafa am ñett ñoo xam ne ay kilifa lañu lool ci saaba yi mooy Muusaa mu bañ a dem waaye alxuraan moo wàcc indi leen weer leen wa ala halaasati allahiina xullifu xatta ida daaqat alayhim al-ardu bimaa raxubat wa daaqat alayhim anfusuhum ba ca laaya ja mujj li suuf di yaayaa ba ñu bisee xaj xajatuñ ci alxuraan fal dikk wax loolee kon loolu lu diw jóg nga ne man bokkuma ci wala nga dee ni waasu nga ko noonu iblis def te fekk moom li fay yaa ngi dund warul laa weesale sa bopp benn liggéey lu jóg rek li ngeen defe moom li ngeen bëgg lépp a ngi ci te it ngeen wut ko ca ak ku fi nekk nag naka itam li nga xam ne mooy mbirum dem gi itam ak liggéey bi ñëpp laa ko sant yamale mu ko ci taalibe yaa ji ceerno rek képp koo xam ne ab taalibe nga liggéeyal Sëñ Tuubaa moom war na ci yow te rafet na ci yow te te kenn weesuwu ko te liggéeyu Sëñ Tuubaa kon ñëpp laa ko sant ak jullit ñu bokkal réew mi ak taalib nga xam ne noo bokk sëñ Tuubaa ku ci mën nga dem ndax loo fa def sa bopp nga ko defal sëñ Tuubaa nga ko liggéeyal góor ñi ak jigéen ñi ne ñëpp dem ndax ngóob moom jigéen mën na ko joxe am ndox wala ñuy joxe aw ñam wala leneen jigéen mën na ko bu kenn des am na it loo ñenn ñuy def gis mbooloo mi dem ñu bari nga defe ne yow boo toogee euh, euh, du tee la ñuy def mat fekk loolu euh, boo ko defee keneen def ko keneen def ku liggéey ba daal di dang daay ku ne danga koy bëgg a jël wàcc sa moroom boo nee gaañu dem nañu defe ne bu ñu demee danañu mën la def gaañu bu ñu ko defee seen bopp lañ koy defal defaluñu la ko moo tax ñëpp nañu maase ci dem bi góor ñeeg jigéen ñi ak mag ñi ndaw ñi te am ca pëstéef am ca paspas pas lañu bëgg lépp ñu fas ko ca te yaakaar ci yàlla ak sëñ bi te xam ne moom la ñuy liggéeyale ni ki li nit ñi it ma bëgg mboolem koo xam ni transporteur nga wala ngay koo xam ne amee nga oto sa bopp bopp boo xam ne da nga koy doxe sax wala muy bu ndaw wala muy lëhën ñu dimbale ma ci lu yóbbu nit ñi danaa wax Moodu Mito mu tudd turu borom oto yi transporteur yi waaye koo ci xam ne dégguñ ci aw turam na xam ne sant nañ ko liggéey bi desa mënta tudd ñëpp rek dana wax nag seeni tur ñi ci xam ni mënees mm, na leen a wax waaye ñëpp lañ ca woo mboolem koo xam ne it am nga watu te dëkk ci dëkk bi nag moom nga xam ne moom yow yaa moom liggéey bi nag moom fu sa woto nekk di liggéey na ko woo bisub àllarba ba mu dikki fii yóbbu nit ñi toog fi ba alxames ji bi jeex mu delloo leen delluwaat ci fa mu liggéey ji loolu moom taalibe yi ne ci dëkk bi te am na watu te ñu liggéey ci beneen dëkk ñoom laa bëgg ñoom loolu ñu xam ne moom lëgg bi ñun ñoo ko moom nee ñu borom wëllu mooy féetee gi mu ñu gaynde <laughs> mën mbokki talibe yi ñu ngi leen di bàyyi ak discours bi nga xamante ni Serigne Abdou Khoudous Mbacké def na ko ci màggalu Daaru Mooti ci weeru mois de mai ci 1984. dana rafet nag. lii dana rafet nag. te yàlla. te yàlla. mu wax leen luy bis bi. mu wax leen bis bii ngeen ñëw tey lu lan la. bis bi. sëriñ bi nee na bisu tey bii. suñu daaw balla ñu ko fi tàmbali woon. sëriñ Modou Awa Balla magam ju baax ji mu wutu tey ci place bi tàmbali woon ci bis bi. ba nga xamee ni borom dëkk bi jóge na fi. ba nga xamee ni borom dëkk bi di maam Thierno Birahim ñi ko sañcoon jóge na fi. ba weer a wa di bëgg a dellu si. daf naa wax ni. daf koo waxoon ni ko. nga ma bindal bataaxal ma bindal ab leetar sëriñ Mouhamadou Moustapha Mbacke. ñu ñaan ko. ñu ñaan ko. roy ko lii nga xam ne moom la def muy màggalu tamxarit bi. roy ko lii nga xam ni moom la Serigne Moustapha def muy màggalu tamxarit bi. muy bis bi Serigne Touba wàcceeb liggéey ba ñibbi si Touba. muy bis bi Serigne Touba wàcceeb ba ñibbi si Touba. wax nga ko it ni ko. na nga na loo xam ne. màggal màggal gee koy tax a jóg. na nga loo xam ne it màggal gee koy tax a jóg. loola it defoon naa ko. loola it defoon na ko. xëy na du ñàkk ku am ab dayam ci nit ñi. xëy na du ñàkk ku ci am benn dég-dég ci nit ñi. ab day ab day. waaw la ma bindoon. la mu bindoon. Hmm. du ñàkk kenn ku ci am dara ci nit ñi. ba loola amee. ni ba loola amee. xëy na du maye ca ndigal. sëriñ Modou Moustapha joxe ca ndigal. ñu tàmbali ko. ñu tàmbali ko. di ko def ci bis bi fi borom daaru jógee. di ko def ci bis bi fi borom daaru jógee. mu di ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru baraxlu wii. muy ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru baraxlu wii. muy wéy ca noona. muy wéy ca noona. ba bi fi sëñ Fallou nekkee. ba jamono yi fi Cheikh Mouhamadou Fallilou Mbacke nekkee. ñu def ko fi ay yoon. ñu def ko fi ay yoon. ci bis boobu ci bis moom nag moo ko soppi indi ko ci bis bi mu nekk tey. Serigne Fallou moomi moo ko soppi te bis ba mu nekkoon indi ko ci bis bii tey. moom it da koo teg ci fu wér. moom it la tax mu def ko da koo teg ci fu dafa wax ni. Serigne Fallou dafa wax ni. ba Serigne Touba ci géej gi. ba Serigne Touba jógee ci géej gi. ba dikk ndar. ba dikk ndar. dafa yónnee woolu Cheikh Ibra Faati. dafa yónnee woolu Cheikh Ibra Faati mi maam Thierno mi. booba mu nga ca Daaru Marnaan gee ca Touba. booba Serigne baa nga ca Daaru Marnaan gee ca Touba. mu fekki ko ndar. Serigne bi dem fekki ko ndar. booba yëgseegul ci biir réew booba sëriñ Touba yëgseegul ci biir réew dafa ñibbisi ba dikk ndar rek dafa ñibbisi ba dikk ndar rek waaw sëriñ Fallou nag sëriñ Fallou nag wax ni bis boobee ñu dajee fa ndar wax ni maam Thierno ak sëriñ Touba dajee fa ndar bis bu saabaan la dajeel bisu fukki fan ak juróom ci weeru baraxlu la dajeel ñu ne kon nag na ngeen ko def ci boobu ni kon ndigal la ngoog dee leen ko màggal ci boobu li nga xam ne nag ni lii nga xam ni nag. dana ko ci yokk ci googu wet. dana ko ci dolli ci googu wet. moo di. moo di. dëkk bi. dëkk bi. day dëkk boo xam ne. dafay dëkk boo xam ni. ba sëñ Touba nekkee Jolof. ba maam Serigne Touba nekkee Jolof. moo digal borom dëkk bi. moo digaloon maam na borom dëkk bi. borom dëkk bi. fekk booba ma nga mbàkke kayoor fekk booba sëriñ baa nga mbàkke kayoor mu bind ci loxoom mu bind maam borom Touba bind ci loxoom wax ko ni ko wax maam Thierno ni ko na sañ ci dëkk ba na sañ ci dëkk ba te gasteen ba te gasteen tudde ko daarul muxti te tudde ko daarul muxti loolee ni loolee ba mu ko ba mu ko waxee. ba mu ko waxee. da leen a wax turu dëkk bi. da leen wax turu dëkk bi. ña toog fa moom. ña toogoon fa moom. mu ni leen. mu ni leen. ndax mas ngeen a dégg benn dëkk bu tudd noonu. ndax mas ngeen dégg benn dëkk bu tuddagul noonu. ñu fa nekk ñu ko mosuñu koo dégg. mbooloo ma fa nokken lépp ñu ko mosuñoo dégg wow mu ni leen tur woowu fortuwuma ko. mu ni leen tur woowu ma joxe fortuwuma ko. loolu nag moo tax ma ne sëriñ Abdou Lahad. loolu moo tax sëriñ Abdou Khoudous nii ni sëriñ Abdou Lahad dénk naa la dëkk bi. dénk naa la dëkk bi. ndax bataaxal boobee. ndax lettre boobee. nijaayam sëñ Abdou Lahad. nijaayu sëñ Abdou Lahad. nijaayu sëriñ Abdou Lahad. di ko wax sëriñ Amsatu Jaxate. ñu di ko wax sëriñ Amsatu Jaxate. moom la sëriñ Touba jox bataaxal ba fa Jolof. moom la sëriñ Touba joxoon lettre ba fa Jolof. mu yët ko ko. mu yët ko maam Thierno. xam ne kon nag. ne sëñ bi nee na mu xam ne kon nag. dëkk boo xam ne. bàyyi ma ko sanclu dëkk boo xam ni bàyyi a ko sanclu sàkk tur wa sàkk tur wa jox ko nijaay lengeem jox ko nijaay lengeem mu yët ko ko mu yët ko ko ab dëkkam ab dëkkam ba moo tax nee ko ba moo tax sëriñ li ñuy wax naan Touba Darou Khoudoss li ñuy wax naan Touba Darou Khoudoss di wax Touba Darou Minam di wax Touba Darou Minam di wax Touba Guy Mbind di wax Touba Guy Mbind na nga jàppe dëkk bi ni Touba Daaru Muxti na nga jàppe dëkk bi it noonu ni Touba Daaru Muxti loo fay wax ak loo fay def lépp loo fi wax ak loo fi def dee ko fi def dee ko fi wax dee ko fi def ko wax dénk naa la ko dénk naa la ko mu ngi ci yow waaw di ci def nag sëriñ bi ne di ci def nag loolee nga xam ni moom la sëñ Daaw Balla ñaanoon sëñ Modou Moustapha loolee nga xam ni moom la magam ju baax ja sëriñ Mouhamadou Balla ñaanoon sëñ Mouhamadou Moustapha muy màggal bis bi. muy màggal bis bi. dafa am loo xam ni. dafa am loo xam ni. damaa mës a dégg ku ci wax sax dara. moom sëriñ bi dafa mës a dégg sax ku ciy wax dara. defe ni bis boo xam ne nit dafaa jóge. defe ni bis boo xam ne nit dafaa jóge. Mm, jarul di def yenn yi. jarul sax di def yenn yi. Mm. ma xam ne nag. sëriñ bi ni mu xam ne nag. sëriñ Mouhamadou Moustapha. sëriñ Mouhamadou Moustapha. bu matul woon la mu doon. bu matul woon la mu doon. Sëriñ Touba du ko taawloo. Sëriñ Touba du ko taawloo. du jëkk doon ab xalifaam. du jëkk doon it ab xalifaam. te it. te it yàlla jox na ko ci xam-xam. yàlla jox na ko ci xam-xam. loo xam ni. loo xam ni. bu du woon Sëriñ Touba it. bu du woon Sëriñ Touba it. la mu am ci xam-xam. la ci xam-xam. lu muy tàmbali. lépp lu muy tàmbali. wéer na ko ci barab. wéer na ko ci barab. bu wér bu wér. loolu moo tax nit mu nekk ci. ni loolu moo taxit nit mu nekk ci. te loolu. te loolu. ñu bari ñu ngi ko ciy roy ñu bari ñu ngi koy roy ginnaaw sëriñ mu daaw bàll mi ginnaaw sëriñ mu daaw bàll mi ñu bari ñu ngi ko ciy roy ñu bari ñu ngi ko ciy roy mm. ci xadiis yonent bi day wax ni ci xadiis yonent sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni man sanna sunnatan xasanatan fa lahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm alqiyama wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alayhi wizruha wa wizru man amila biha ila yawm alqiyama mu wax ni tàmbali loo xam ne. ku tàmbali loo xam ni. yaa ko jëkk yaa ko jëkk a lu baax. ci lu baax. da nga am yool ba. ba. am yoolu ko jëf. am yoolu képp it ku ko jëf. ba ba yomal xiyam. ba keroog saa di taxaw. koo xam ne danga nga def loo xam ne itam. koo xam da ngaa def loo xam ne itam. yaa ko yoonal. yaa ko yoonal. te muy lu baaxul. te muy lu baaxul. ba da nga da nga fab bàkkaar ba. da nga fab bàkkaar ba. da la war. dana la war. dana war képp ku jëfe loolee ba yomal xiyam. dana warit képp ku kon loolu doy naa tegtale ci sëñ sëriñ bi nee na kon loolu doy naa tegtale ci sëriñ Moodu. ak sëriñ Moodu mii ko roy moom. ak sëriñ Moodu mii ko roy ci moom. ginnaaw loolu itam. ni ginnaaw loolu itam. bu nu ko seetee. bu nu ko seetee. te xam ni daje bi. te xam ni daje bi. dara waralu ko. dara waralu ko. lu muy daje jàng alquran. lu muy daje jàng alquran. tagg yonant bi. tagg yonant bi. wut ay ñam ay ñam leel jullit bi ñu defal ko ko nga xam ne moo tax moo moom bis ba ñu defal ko ki nga xam ne moo moom bis bi dana daal di dëppoo ak ak ak sunna dana daal di dëppoo ak sunna ndax bépp jataay ndax bépp jataay ak mbooloo mu toog ak bépp mbooloo mu fa toog di tudd yàlla di tudd yàlla di sikkar di sikkar di jàng alquran di jàng alquran moom la yonent bi ne mooy riyaagul janna moom la yonent bi wax ni mooy riyaatul janna. riyaadul janna riyaadul janna. daa wax ni idaa marartum bi riyaatil jannati fartau qaalu wa maa riyaadul jannati yaa rasulallah qaala xalaaqu zikr dafa wax ni. ni dafa wax ni. ni dafa wax ni. bu ngeen rombee dëri dëri àjjana. bu ngeen rombee dëri àjjana. na ca for. na ngeen ca for. ñu ne ko lu lii dëri àjjana. ñu ni ko lan mooy dëri àjjana. mu ne ko mooy mu ne mooy géew yi ñuy tudde yàlla. mu ni leen mooy géew yi ñuy tudde yàlla. te tudd yàlla. te tudd yàlla. alquran moo ca jiitu. alquran ca jiitu. alquran ci ko tudde zikar. ci boppam it daañu ko tudde zikar. inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahaafidun mu waxit ni mu dellu waxaat ni wa innahu la zikrun laka wa li qawmik wa innahu la zikrun laka wa li qawmik moom alquran kon loolu doy naa xamee ni foo xam ne loolu rek lañ fay def sëriñ bi nee na kon loolu doy naa xamee ni foo xam ne loolu rek lañ fay def dëppoo na ak yoon dëppoo na ak yoon dëppoo na ak sunna dëppoo na it ak sunna waaw ah ginnaaw loolu it ni gannaaw loolu it liggéeyal sa waajur. liggéeyal say waajur. li jiitu sax moo di yonant bi. li jiitu sax loolu lépp moo di yonant bi. ndax ñaanal ko. ndax ñaanal ko. moo di salaatu ala nabi. moo di salaatu ala nabi. te suñu borom daa wax ni. ca yàlla suñu borom dafa wax ni. inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima dafa wax ni. ni dafa wax ni. yàlla ci boppam. yàlla ci boppam. ak malaakaam yi. ak malaakaam yi. dañuy julli ci yonent bi. dañuy sàbbaat di julli ci yonent bi. mu ne kon nag. mu ni kon nag. yéen ñi gëm. yéen ñi gëm. dee leen julli ci yonent bi. dee leen julli ci yonent bi. waaw te julli ci yonent bi. te julli ci yonent bi. ñaanal ko rek la. ñaanal ko rek la. sallallahu alayhi wa sallam dañ koy firee yàlla na ko yàlla dolli xéewal. ni sallallahu alayhi wa sallam dañu koy firee yàlla na ko yàlla dolli xéewal ak mucc. loolu rek lay firi. ni rek lay ah ñu gis it. nee na ñu gis it. Omar Ibnul Xataab. Omar Abdul Xataab. Ibnul Xataab Ibnul Xataab. radiyallahu anhu. dafa doon tàggu yonent bi. ni daf doon tàggu yonent bi. di dem umra ji. di dem umra ji. yonent bi yonent bi ni ko. yonent bi ni ko. ashrik naa fi du'aika yaa Omar yow Omar. yow Umar. na nga nu boole ci say ñaan. na nga nu boole ci say ñaan. jëm yonent bi moo soxla ñu di ko ñaanal. njeet yonent bi moom ci boppam moo soxla ñu di ko ñaanal. ko ba ko dénk ba di ko dénk Umar. Ah, boobee ba di ko ñaanal. boobee ba léegi ñuy julli ci moom di ko ñaanal. kon keneen kon keneen ku mën di doon it. ñu war koy ñaanal. ñu war koy ñaanal. ah. beneen dikk. beneen hadis ñu wàcc. dafa am lu alquran wax. ni dafa am lu alquran wax. wax ne wa an laysa lil insani illa ma saa wax ci alquran ni. ni dafa wax ci alquran ni. nit amul lu mooy la nga jëf. nit ku mu mën di doon amuloo dara lu la nga jëf. ba am sax ñu wax ni kon. ba am sax ñu wax ñu wax ni kon. ku dee nga di ko saraxal wala nga di ko ñaanal du jariñ dara. ku dee ba noppi nga di ko saraxal ak di ko ñaanal dootu ko jariñ dara. waaye xadis yonent bi dikk leeral ko. wante yo xadisu yonent bi dikk leeral ko. wax ni. wax ni. isa maata bnu aadama inqataa amaluhu illa min talaahat sadaqatin jaariyatin aw ilmin yuntafau bihi aw waladin saalihin yad'u lahu mu wax ni. xadis bi wax ni. doomu aadama. doomu aadama. bu dee. bu dee. jëfam jëpp dog na. jëfam jëpp dog na. ndare yett. ginnaaw ñett. sarax soo fa bàyyi muy dox. sarax soo fa bàyyi muy dox. mooy lu mel ni nga gasub teen. mooy lu mel ni nga gasub teen. wala naanu. bu mu mën a doon. wala nga tabax jàkk. wala nga tabax jàkk. wala juma. wala juma. nga wut ay tool. meññet ma di dem ci julliti. wala nga wut ay tool meññet ma di dem ci julliti. wala nga tabax kër. walla nga tabax kër. xamusle ko. jullit yi di ca dëkk. jullit yi di ca dëkk. wala nga ne luyaas bu ci jógee nañ ma ko joxal. ay fuqaraawu nangam. wala nga ni luyaas bu ci jógee nañ ko jox ay fuqaraawu nangam. waaw loolu mooy sadaqatul jaariyatu xam ne. ni mi ngi sa ginnaaw. loolu jëf la joo xam ne mi ngi dox sa ginnaaw. mooy benn bi. mooy benn bi. di aw ilmin yuntafa'u bihi moo xam-xam boo xam ne des koy jëriñoo sa ginnaaw. mooy xam-xam boo xam ne des koy jëriñoo sa ginnaaw. loolu moo di mel ni taalif ay téere. loolu mu ngi mel ni taalif ay téere. wala wala nga bind alxuraan ñu di ko jàng. baa nga bind alxuraan ba fi ñu di ko jàng. wala nga jënd ay téere. yooyu alxuraan ak yooyu xam-xam nit ñi di koy jëriñoo. baa nga jënd téerey alxuraan wala yu xam-xam joxe nit ñi ñu koy jëriñoo. wala nga xamal aw nit ñooñu di ko xamle. baa nga xamal aw nit ñoo ñooñu wëlbatiku di xamle. kooku mooy ñaareel bi. boobu mooy ñaareel bi. di ko ñetteel. ni di ko ñetteel. mooy nga bàyyi doom. mooy nga bàyyi doom. ju baax ju baax. mu di la ñaanal mu di la ñaanal. loolu nag kon. ni loolu nag kon. mënees na cee déggee. mënees na cee déggee. màggal yi ñuy def. ni màggal yu ñuy def. ci bis boo xam ne kooka dafaa jóge. ci bis boo xam ne kooka dafaa jóge. waaw ah doomam di ko ko defal. doomam wëlbatiku di ko ko defal. Ah ñu ngi def la ñu santaane. ñu ngi def li ñu santaane. waaw. loolu rek nag mooy bis bi. sëriñ bi nee na loolu rek nag mooy bis bi. ndax boo wootee war ngaa xam la li ngay woote. ndax boo wootee ba ñu wuy si la war ngaa xam ne li nga wooteeg ñi la wuy si lu ñu wuy si. loolu mooy bis bi. nii loolu mooy bis bi. nii la amee itam. la amee. nii li ci des nag. nii hmm. ñi nga xam ne war naa leen jox ndigal. ñi nga xam ni moom war na leen a jox ndigal. wala moo war leen a dénk. baa mu war leen a dénk. jiital ci sama bopp. jiital ndénkaane yooyu ak ndigal yi mu jiital ci boppam. moo di. moo di. ñi nga xam ni doomi Cheikh Ibra Faati lañu. mooy ñi nga xam ni doomi Cheikh Ibra Faati lañu. ak ñi nga xam ni. ak ñi nga xam ni. ay sëtam lañu. ay sëtam lañu. ak ñi nga xam ni. ak ñi nga xam ni. ay taalibe yu aju ci moom lañu. ay taalibe yu jokk ci moom lañu. ñoom sañ naa leen wax. ñoom. de moom sañ na leen a wax. ndax dañoo wax ne min xusni naa leen a wax. ah ñii nekk ni ci rafetu jëf yu waay mu bañ a dugg ci lu yoonam nekkut. ñii ñii nag sama yoon a ci ñoom. ñii yoonam a nga ci ñoom sañ na leen a jox ndigal sañ na leen a tere ñu baax. li ma leen di digal. ni lim leen di digal. nu farlu ci topp yàlla. mooy nu farlu ci topp yàlla. ak liggéey. ak liggéey. ak farlu ci. fonk ak taalibe ak farlu bu baax ci fonk taalibe ndax yooyu rek ni ndax ñëpp yooyu rek ci la borom daaru nekkoon ci la borom daaru nekkoon ba jóge fi ba jóge fi ñun it sëñ Moodu mi fi nekkoon euh, ñun it sëriñ Moodu mi fi nekkoon ak i rakkam yi dem ak i rakkam yi dem ak ñun ñi fi des ak ñun ñi fi yàlla baawandi nan jéem a ne ci loolu nan jéem ne ci loolu buñ ne wax buñ ne jamono ji daa soppiku. buñ wax mukk ni jamono ji daa soppiku. wala mel ni la baaxoon daa baaxut wala leneen daa dikk lu gën baa mel ni la baaxoon daa baaxatul baa leneen daa dikk. loo xam ne moo gën loola. loo xam ne moo gën loola. bu ñu waxit nii. ni bu ñu waxit mukk nii. mu mënunoo aw fa mu awoon. mënunoo aw fa mu aw fa mu awoon. Eh? wa in lam yudrik al-ghaalib sha'wa ad-daliih koo xam ne dafa dafa dafa dafa munta dox. mu ni koo xam ni dafa munta dox. ab gàtt. ab gàtt. wala leneen. walla leneen. bu mu ne rek lafañ naa na topp ca mbooru ña mu àndal rek. bu mu ni rek lafañ naa damay toog na góorgóorlu rek topp ca ña wax loolu. ni nu wax loolu. waaw. lii la fa a nag ko. waaye nañ ci jéem dem ci mën ni kii nga xam ni moom la ñuy roy muy suñu royukaay di Cheikh Ibra la mu daan def loolu mooy discours bi nga xamante ni Serigne Abdou Khoudous def na ko ci màggalu Daaru Muxti ci weeru mai ci mille neuf cent quatre kon dañuy dellu siwaat rek digteel leen beneen waxtaan wi nga xamante ni def na ko ci màggal ga ci topp moom it ba tey ci weeru mai ci mille neuf cent quatre-vingt-cinq te Cheikh Awa Balla Gueye di ko jottale bis sëriñ bi nee na bisub tey bii. sëriñ Modou Awa Balla mi ko fi tàmbali sëriñ Modou Awa Balla magam ju baax ji mu wutu tey ci place bi tàmbali woon ci bis bi. ba xamee ni borom dëkk bi jóge na fi. ba nga ni borom dëkk bi di maam Thierno Birahim ñi ko sañcoon jóge na fi. ba weer bëgg a dellu si. di bëgg a daf naa wax ni. daf koo waxoon ni ko. nga. nga bindal bataaxal sëñ Modou ma bindal ab leetar sëriñ Mouhamadou Moustapha Mbacke. ñu ñaan ko. ñaan ko. roy xam ne def muy màggalu tamxarit lii nga xam ne moom la sëriñ Moustapha def muy màggalu tamxarit bi. muy bis bi sëriñ Touba wàcceeb liggéey ba ñibbi si Touba. bi sëriñ Touba wàcceeb liggéey ba ñibbi si Touba. wax loolu yëpp sëriñ Modou wax ko yëpp ni ko. na nga bind loo xam ne it. màggal gee koy tax a jóg. na nga bind loo xam ne it màggal gee koy tax a jóg. loola it defoon naa ko. loola it defoon na ko. xëy na du ñàkk ku am ci am benn dég-dég ci nit ñi. ab day ab day. waaw la ma bindoon. la mu bindoon. Hmm. du ñàkk kenn ku ci am dara ci nit ñi. ba loola amee. ni ba loola amee. sëriñ Modou Maye ca ndigal. sëriñ Modou Moustapha joxe ca ndigal. ñu tàmbali ko. ñu tàmbali ko. di ko def ci bis bi fi borom daaru jógee. di ko def ci bis fi borom daaru di ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru baraxlu wii. muy ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru baraxlu wii. muy wéy ca noonu. muy wéy ca noonu. ba bi fi sëñ Fallou nekkee. ba jamono yi fi Cheikh Mouhamadou Fallilou Mbacke nekkee. ñu def ko fi ay yoon. ñu def ko fi ay yoon. ci bis boobu ci bis boobu. moom nag moo ko soppi indi ko ci bis bi mu nekk tey. Serigne Fallou moomi moo ko soppi ca bis ba mu nekkoon indi ko ci bis bii tey. moom it da koo teg ci fu la tax mu def ko da koo teg ci fu wér. dafa wax ni. Serigne Fallou dafa wax ni. ba Serigne Touba ci géej gi. ba sëriñ Touba jóge ci géej gi. ba dikk ndar. ba dikk ndar. dafa yónnee woolu Cheikh Ibrahima dafa yónnee woolu Cheikh Ibra Faati mi maam Thierno mi. booba mu nga ca Daaru Marnaan gee ca Touba. booba Serigne Ba nga ca Daaru Marnaan gee ca Touba. mu fekki ko Ndar. Serigne bi dem fekki ko Ndar. booba yëgseegul ci biir réew mi. booba Serigne Touba yëgseegul ci biir réew mi. dafa ñibbisi ba dikk Ndar rek. dafa ñibbisi ba dikk Ndar rek. waaw. Serigne Fallou nag. Serigne nag. wax ni bis boobee ñu dajee fa maam Thierno ak Serigne Touba dajee fa Ndar. bis bu Saabaan la dajee. bisub fukki fan ak juróom ci weeru baraxlu la dajeel mu ne kon nag na ngeen ko def ci boobu ni kon ndigal la ngoog dee leen ko màggal ci boobu lii li nga xam ne nag ni lii nga xam ni nag hmm, dana ko ci yokk ci googu wet dana ko ci dolli ci googu wet moo di moo di dëkk bi dëkk bi day dëkk boo xam ne dafay dëkk boo xam ni ba Sëriñ Tuubaa nekkee Jolof ba maam Sëriñ Tuubaa nekkee Jolof moo digal borom dëkk bi. moo digaloon maam Thierno. borom dëkk bi borom dëkk bi. fekk booba ma nga Mbàkke Kajoor. fekk booba sëriñ baa nga Mbàkke Kajoor. mu bind ci loxoom. mu bind maam borom Touba bind ci loxoom. wax ko ni ko. wax maam Thierno ni ko. na sañ ci dëkk ba. na sañ ci dëkk ba. te gasteen ba. te tuddee ko daarul muxti. te tuddee ko daarul muxti. loolee mu ñaanal loolu nag kon nii loolu nag kon manees na cee dégge manees na cee dégge ni màggal yi ñuy def ni màggal yi ñuy def ci bis boo xam ne kooka dafaa jóge ci bis boo xam ne kooka dafaa jóge ah, doomam di ko ko defal doomam wëlbatiku di ko ko defal ah, ñu ngi def la ñu santaane ñu ngi def li ñu santaane waaw ah. loolu rek nag mooy bis bi sëriñ bi nee na loolu rek nag mooy bis bi. ndax boo wootee war ngaa xam la li ngay wootee. ndax boo wootee ba ñu wuy si la war ngaa xam le li nga wooteeg ñi la wuy si lu ñu wuy si. loolu mooy bis bi. nii loolu mooy bis bi. nii la amee itam. nii it la amee. nii la amee. li ci des nag. nii li ci des nag. Hmm. ñi nga xam ne war naa leen a ndigal. ñi nga xam ni moom war na leen jox ndigal. wala mu war leen a dénk. baa mu war leen a dénk. jiital ci sama bopp. jiital ndénkaane yooyu ak ndigal yi mu jiital ci boppam. moo di. moo di. ñi nga xam ni doomi Cheikh Ibra lañu. mooy ñi nga xam ni doomi Cheikh Ibra Faati lañu. ak ñi nga xam ni. ak ñi nga xam ni. ay sëtam lañu. ay sëtam lañu. ak ñi nga xam ni. ak ñi nga xam ni. ay taalibe yu aju ci moom lañu. ay taalibe yu jokk ci moom lañu. ñoom sañ naa leen wax. ñoom. de moom sañ na leen a wax. ndax dañuy wax ne min xusni islaami marid tarkuhu ma laa yaani waaye ñii moom naa leen a wax. ah ñii nekk na ci rafetu jëf yi waaye mu bañ dugg ci lu yoonam nekkut. ñii nag sama yoon a ci ñoom. ñii yoonam a nga ci ñoom sañ na leen a jox ndigal sañ na leen a tere ñu baax. li ma leen di digal. ni lim leen di digal. nu lu ci topp yàlla. mooy nu farlu ci topp yàlla. ak liggéey. ak liggéey. waaw ak farlu ci. fonk ak taalibe ak farlu bu baax ci fonk taalibe ndax yooyu rek ni ndax ñett yooyu rek ci la borom daaru nekkoon ci la borom daaru nekkoon ba jóge fi ba jóge fi ñu nit sëñ Moodu mi fi nekkoon euh, ñu nit sëriñ Moodu mi fi nekkoon ak i rakkam yi dem ak i rakkam yi dem ak ñun ñi ak ñun ñi fi yàlla baawandi nan jéem a ne ci loolu nan jéem ne ci loolu buñ ne wax buñ ne jamono ji daa soppiku. bu ñu wax mukk ni jamono ji daa soppiku. wala mel ni la baaxoon daa baaxut wala leneen daa dikk lu gën baa mel ni la baaxoon daa baaxatul baa leneen daa dikk. loo xam ne moo gën loola. loo xam ne moo gën loola. Ah, bu ñu waxit nii. ni bu ñu waxit mukk nii. Ah, mu mënunoo aw fa mu awoon. mënunoo aw fa mu aw fa mu awoon. Eh? wa in lam yudrik waalihu sha'wa daliya koo xam ne dafa dafa dafa dafa mënta dox. mu ni koo xam ni dafa mënta dox. ab gàtt. ab gàtt. wala leneen. wala leneen. bu mu ne rek lafañ naa na topp sa mboorum ña mu àndal rek. bu mu ni rek lafañ naa damay toog na góorgóorlu rek topp ca ña àndal. bu wax loolu. ni wax loolu. waaw. lii rek la fa a nag lam doon def ak ko. waaye nañ ci jéem dem ci man ni kii nga xam ni moom la ñuy roy muy suñu royukaay di Cheikh Ibra la mu daan def loolu mooy discours bi nga xamante ni Serigne Abdou Khoudoss def na ko ci màggalu Darou Mouhty ci weeru mai ci mille neuf cent quatre vingt kon dañuy dellu siwaar rek digtal leen beneen waxtaan wi nga xamante ni def na ko ci màggal ga ci topp moom it ba tey ci weeru mai ci mille cent quatre-vingt-cinq te Cheikh Awa Balla Gueye di ko jottali loolu nga wax nag. mu ne loolu nga wax nag. ci ñaan gi. ci ñaan gi. danaa ko ñaan. danaa ko ñaan. ngir yàlla. ngir yàlla. ci ki nga xam ne. ci ki nga xam ne. lottul ci dara. ci dara. te lu am mooma. te lu am mooma. ñu moom sunu borom. ñoo ngi koy ñaan moom sunu borom. bi ci ngëneelam ak tedd nga am. mu indi xéewal ci réew mi. mu indi xéewal ci réew mi. indi fi naataange. indi fi naataange. dàq bekkoor bi. te dàq bekkoor bi. te indi fi nawet bu barkeel. te indi fi nawet bu barkeel. bu ànd ak jàmm. bu ànd ak jàmm. leneen lu waay di liggéey it. leneen lu waay di liggéey it. ci réew mi ci réew mi. yàlla barkeel liggéey bi. yàlla barkeel liggéey ba. ak fu mu koy liggéey. ak fu mu koy liggéey. ak lu muy liggéey. ak lu muy liggéey. ñu wëlbatiku nag. ñu wëlbatiku nag. jëm ci ñi nga xam ne. jëm ci ñi nga xam ni ñoo lépp loo xam ni. lislaam daf koo digle. lislaam daf koo digle. nan ca def lanu mën. nan ca def lanu man lépp loo xam ne daf koo tere. lépp loo xam ne daf koo tere. bu nu fa xand mukk. bu nu fa xand mukk. te farlu it ci taalibe gi. te farlu it ci taalibe gi. ndax. amuñu lu dul moom. amuñu lu dul moom. te. sàggan ci la nga xam ne amuloo lu moom. la nga xam ne amuloo lu moom. ba loola rëcc la. ba loola rëcc la. ëpp naa def. ëpp naa def. ndax bis boo xam ne nii rëccu du fa am njariñ liggéeyu liggéeyu tool yi liggéeyu tool yi it. mën na ko fonk. mën na ko fonk. ndax. ndax. borom daaru. borom daaru. dafa wax ni. dafa wax ni. bi sëñ Touba di dem ci géej gi. bi sëñ Touba di dem ci géej gi. li tax mu fonk mbay. li tax mu fonk mbay. da koo boole woon ci yem ko dénk. daf koo boole woon ci yem ko dénkoon. ak yem ko batale. ak yem ko batale woon. aw bayit la ko wax. aw bayit la ko wax. da ko ne wa fi zar'in. da ko ne bu ci mbay ne. wa fi zar'in ruuxul xalqi. Mhm. in kunta aaqila. Mhm. wa fiihi wa fiihi imaadu diini li xurri wal abdi. da ko ne woon ci mbay mii ngeen nekk ci la ruub. mbir mbindeef yi nekk. ci biir mbay mi itam ci la dë dëgërug diine nekk. loolu xam ci moo xam gor la moo xam jaam la. nee na loolu moo waral. nee na loolu moo waral. bayit woowu mu ko wax. bayit woowu mu ko wax. moo tax mu fonk mbay. moo tax mu fonk mbay. te yaakaar naa ni. te yaakaar naa ni. ginnaaw booba day dem. ginnaaw booba day dem. batale ko ginnaawam. batale ko ginnaawam. njaboot gi. njaboot gi. ak taalibe yi. ak yoon wi. ak yoon wi. kon lu mu digle woon boobee. kon lu mu digle woon boobee. mën naa dem ci biir ñëpp. mën naa dem ci biir ñëpp. booba moo yor yoon wi. ndax booba moo yor yoon wi. kon loolu du fi jóg. kon nag loolu du fi jóg. mbay moomee mu def. mbay moomee mu def. am na ca loo xam ne. am na ca loo xam ne. yaakaar naa ne ndigal loolee ko ko may. yaakaar naa ne ndigal loo moo ko ndax ndax dafa daan def loo xam ne donga yi ne ci tool yi tarbiye yi dafa daan def loo xam ne donga yi ci nekk ci tool yi di ay tarbiye lu ñuy liggéey lépp lu ñu liggéey da koy jox sëriñ Touba da koy jox sëriñ Touba leneen lu ko dikkal nag leneen lu ko dikkal nag soo ko jëmee ci ay mu soo koo jëmee ci ay yitteem ak yittee bindeef ci ak yittee bindeef yi ci def am na benn waxtaan kat am na benn waxtaan ku ñuy wax Balla mas na ko wax ni ko. mas na koo wax ni ko. ñaari bataaxel. ñaari bataaxel. ci yow la mas a daje. ci yow la mas a daje. bataaxelub sëñ Touba. bataaxelub sëñ Touba. dikk ñi la dugub nekkul ci kër gi. dikk ñi la dugub nekkul ci kër gi. na nga wut dugub indi ci kër gi. na nga wut dugub indi ci kër gi. ak bataaxel bu jógee ci borom ndar. ak bataaxel bu jógee ci borom ndar. mu ne la wutal ma dugub ma jox ko réew mi ñu dunde ko ni la wutal ma dugub ma jox ko réew mi ñu dunde ko mu ne ko ñaari bataaxel yaa ko mas a dal kon ñaari bataaxel yooyu yaa ko mas a am yow Thierno dugub de nekk na fi mu fi jógee Sëriñ Modou Moustapha Sëriñ Modou Moustapha ni ko wuutu ni ko wuutu woon di yebal di ko jël si di yeble si ñu di ko jël si di ko jox njaboot ñu di ko jox njaboot ga ba loolee def na ay at ba loolee def na ay at wala lañ xam ne ndekete ba koy laaj loolee ab tàggoo booba la xam ne ndekete ba muy laaj loola ab tàggoo la woon loolu mu wax ci borom ndar mu wax ci borom ndar it. moom it noonu la amee. moom it noonu la amee. ndax euh, mooma at. ndax mooma at. dafa yebal chef de canton yi. dafa yebal chef de canton yi. ñu dikk fii mu di leen jox dugub. ñu dikk fii mu di leen jox dugub. ñu di ko yóbbu ci seen i canton di ko jox nit ñi. ñu di ko yóbbu ci seen i canton di ko séddale nit ñi. ñu ngi fàttaliku. ñoo ngi fàttaliku. benn chef de canton bu ñuy wax yet naa yoro. benn sant benn chef de canton bu ñuy wax yet naa yoro. nee ñu dafa bi mu dikkee fii. nee ñu bi mu dikkee fii. dafa wax ni. dafa wax ni. dugub bi mu ngi mel ni suuf si. dugub bi mu ngi mel ni suuf si. dafa déggul wolof loolu. ndax wolof yi dafa seetul. dugub bi bari na lool mi ngi mel ni suuf mu lool mi ngi mel ni suuf si. kon léegi mën ngeen a defal dërëm ñaari faxa. kon nag mën ngeen noo defal dërëm ñaari faxa. nga loolu bariwul ku ko mas a am. loolu day bariwul ku ko mas a am. ci mujj xeex bi. ci mujj xeex bi. commandant Louga. commandant Louga. yónnee si na fii ndaw. yónnee si na fii ndaw. wax ko ni ko. wax ko ni ko. ñi nga xam ne dañ leen a téye fii ci kaso bi. ñi nga xam ne dañ leen a téye fii ci kaso bi. dañu amatul ceeb bu ñu leen dundalee. dañoo amatul ceeb bu ñu leen dundalee. mu bëgg nga jox nu dugub. mu bëgg nga jox nu dugub. ñu dundalee leen ko. mu dundalee leen ko. am na kuñ daan wax jaabi. am na kuñ daan wax jaabi. ñu dëkk Louga ñu ci bari xam nañ ko. ñi dëkk Louga ñu ci bari xam nañ ko. kooku la yebal. kooku la yebal. ba mu dikkee. ba mu dikkee. sëriñ bi ne ko dugub ji dañ koo bojjagul. waaye sëriñ bi ne ko dugub ji dañ koo bojjagul. waaye des na leen bojjal. waaye des na leen bojjal. mu ne ko nag mënumaa ñàkk lu ma yóbbu moom. mu ne ko nag mën la mënumaa ñàkk lu ma yóbbu man. ndax ña fa ne dara luñ leen jox nekku. ndax ña fa nekk dara luñ leen jox néewu fa. booba moom moo yor kaso. te booba moom moo yor kaso ba. ba sëñ bi dafa foofu ay saaku ci biir kër gi. ba sëñ bi ay saaku ci biir kër gi. jox ko ko mu yóbbu. ñu soog a nekk ci nekk ci waajtaayu bojjal leen. kon nag ñun war nañoo fonk mbay. kon nag ñun war nañoo fonk mbay. te bañ a yokkat. te bañ a yokkat. ñun ñi nga xam ne nag. ñun ñi nga xam ne nag. nooy waa waa kër borom daaru. nooy waa kër borom daaru. nanu góorgóorlu. nanu góorgóorlu. xam ne sax. xam nañ ne sax. laa yudriku al-ghaalib sa'wa al-baali'. nee na kenn kuy soox du mën a dab mukk lefum ka nga xam ne nii day waaxoog tànkam ne njëriñ. xam nañu ni. xam nañu ni. Mm, ba nu juddoo. ba nu juddoo. la nu yaafus. la nu yaafusoon. ñooñee ñoo doon aw góor. ñooñee ñoo doon góor ya dëgg. kon mënuñoo fexe ba jot. kon mënuñoo fexe ba leen. ba ba seen uh, ila tax bay. nee na mënuñoo fexe ba jot leen. loolu rek dañuy lotaar rek. Mm, mm, mënuñoo yegg ci seen ñaari tax. mënuñoo àgg ci seen ñaari bëjur yi. waaye nag. waaye nag. du tee nan leen bëgg. du tee nag nan leen bëgg. te roy leen. te roy leen. waaw ndax xam nga imaamu Shaafi'i. ndax imaamu Shaafi'i. dafa wax ni. dafa wax ni. uhibbu saalihiin. bëgg ñu ñu baax ñi. wa lastu minhum. te nag bokkuma ci ñoom bëgg naa leen waaye bokkuma ci ñoom. wa arju an anaala bihim shafaa. waaye yaakaar naa mbëggeel gii ëllëg ma am ci ak ràmm ci yàlla. wa akrahu man. waaye bañ naa képp koo xam ni. tijaaratuhu al-maasi. la muy dund la muy commercer mooy dund rek. wa in kunna sawaan fil bidaa. doonte lee noo bokk marchandise taxul ma bëgg leen. kon nag ñun foofu nan fa kon nag ñu it nanu nekk foofa rek. bëgg sëriñ Touba. nanu bëgg sëriñ Touba. bëgg Thierno. bëgg Thierno. bëgg képp ku baax. bëgg képp ku baax. te roy ci ñoom. te roy ci ñoom. te bu nu ne rek jamono daa soppeeku. te bu nu ne rek jamono daa soppeeku. dañuy wax naan jamono bi moo soppeeku. dañuy wax naan jamono bi moo soppeeku. sëñ Touba nee na. waaye sëñ Touba nee na. waa jamono ñooy soppeeku. waa jamono ñooy soppeeku. jamono du soppeeku. waaye jamono na melaan rek la mel. nga xam ne jant baa ngi fenk. ñu xam ne jant baa ngi fenk. weer wi dee bu weer wi di teroo ko dee waaw ah, alfasolu arbaa ñu ngi dikk nee na faslu ñeenti faslu yi ñu ngi dikk nañ daan dikkee waaw lu ci ne ma nga woon noonu waaye nit ñi ñoo soppeeku lu ci nekk na mu meloon la mel waaye nit ñi ñooy soppeeku ñoo soppeeku nun nag ñoo soppeeku kon nag kon nag nan delluwaat ci loolee nan delluwaat ci loolee inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim mu ni yàlla nee na du ma soppi mukk li nekk ci nit ñi lu dul nit ñi ñoom ñooy soppi la ñu nekkoon zalika bi anna allaha lam yakun mughayyiran ni'matan an'amha ala qawmin hatta loolu la ko waral mooy yàlla nee ne yéenewu maa soppi xiiwal gi ma def ci jaam yi ja benn jamono. bu soppeeku bu nu wax ni rek jamono ji soppeeku na. daal di toog. daal di toog. daal di bañatee sàkku. daal di bañatee sàkku. bañatee bëgg lañ daan bëgg. bañatee bëgg lañ daan bëgg. bañatee wut lañ daan wut. bañatee wut it lañ daan wut. ko bëgg. ndax ku ko bëgg. te wute ko nañu ko doon wute. te wute ko nañu ko daan wute. ba tey da ko mën a am. ba tey da ko am nañu ko daan amee. ndax li sëñ Touba indi woon. ndax li sëñ Touba indi woon. ci ak nekkam rek. yemul ci ak nekkam rek. dafiy nekk ba faaw. dafiy nekk ba faaw. dafa mel ni sax. dafa mel ni sax. dafa mel ni sax ginnaawam la gën a yokku. dafa mel ni bu ñu koy seetlu ginnaawam la gën a yokku. kon loolu day naa rafet a njort. kon loolu day naa rafet a njort. mu jàpp ci moom bu baax. mu jàpp ci moom bu baax. te mooy ci moom bu baax. te mooy ci moom bu baax. te xam ne it. te xam ne it. Hmm. li saa borom digle woon. li saa borom digle woon. ak li mu tere woon. ak li mu tere woon. du fi jóg mukk. du fi jóg mukk. kenn mënu koo soppi. kenn mënu koo soppi. Hmm. li yonent ba waxoon it. la yonent ba waxoon it. moom sunna mi ngi fi. moom it sunna mi ngi fi. ñu ngi baraktu fiikum. mu ni bàyyi naa ci yéen. ma in tamassaktum bihi. loo xam ne bu ngeen te jàppee. lan tadillu ba'di abada. du ngeen réer sama ginnaaw mukk. kitaaballahi wa sunnati. te loola mooy sama sunnati ak téereb yàlla bi. kon nag. kon nag ku sàggan yaa sàggan ku sàggan yaa sàggan waaye la yàlla digle woon mu ngi fi waaye la yàlla digle woon mu ngi fi sunu si yonent baa ngi fi sunu si yonent baa ngi fi yoonu tarbiya wi sëñ Tuubaa indi woon mu ngi fi yoonu tarbiya wi fi sëñ Tuubaa indi woon mu ngi fi ku yokkat yaa yokkat ku yokkat yaa yokkat ku dellu ginnaaw yaa dellu ginnaaw ku dellu ginnaaw yaa dellu ginnaaw ku sàggan ba bañ koo am yaa ko def ku sàggan ba bañ koo am yaa ko def ngir yaa ko wutu ngir yaa ko wuti wala nga def yaa ko wutut ngir yaa ko wutut mel ni loola dafa sobbi leneen a def leneen moo xew léegi. mel ni loola dafa xaw a sàppi leneen a xew léegi. te loolu lépp amu ci. te loolu yëpp amu ci. loola mi ngi fi ba faw loola mi ngi fi ba faw ndax moom it. ndax moom it. loolu xadis yonent bi wax. loolu xadis yonent bi wax. jiin wax léegi. jiin wax léegi. wax na lu ko niir. wax na lu ko niir moom sëñ Touba. fa Touba. nee na Touba texe. fa Touba li abdin. nee na Touba texe daal ñenn ab murit ab jaam. yaabudullaha rabbahu. bépp buy jaamu boroomam. bi tartiili quraanin di ko jaamoo ci ja ci jàng alquran ju màgg ji. bi tartiili quraanin aziimin yaqi karba. mii nga xam ne moo nuy fegal tey ay njàqare. ba loolu dëppoo naag hadis. loolu nag dëppoo naag hadis boobu. téereem bi ak sunnaam. téereem bi ak su kon moom it loolu la digle. kon moom itam loolu la digle. te te layoon ak nun. te nag layoon ak nun. ba tàggoog nun. ba ndax nee na. ndax nee taalibi. taalibe ak sëriñ ba ak sëriñ ba ñoo bokk lu ñu leen digal ñoo bokk lu ñu leen digal bokk lu ñu leen tere bokk lu ñu leen tere waaye di wax rek sëriñ bi nangam waaye di wax rek sëriñ bi nangam mi ngi mi ngi mi ngi def nangam du def nangam mi ngi def nangam du ma def nangam te loolu sëñ bi da ca layoog ñun ba noppi te sëñ bi dafa layoog ñun ci loolu ba noppi dafa woote ci Jolof dafa woote ci jolof jaamu leen yàlla ni jaamu leen yàlla man kat jaamu lu ma leen man kat jaamu lu yàlla sama bopp rek laay jaamul yàlla kon nag layoon ak nun kon nag layoon ak nun kon nanu góorgóorlu bu baax kon nanu góorgóorlu bu baax ci topp yàlla ci topp yàlla bëgg sëriñ bi ak gëm ko ak gëm ko te mooy ci moom te mooy ci moom te xam ne ña ko jëkkoon sax. te xam ne ña ko jëkkoon sax. Euh, ba nga xam ne nii ak soofiyatu day soog a sosu. nga xam ne booba ak soofiyanke day soog a sosu. ci jamono yi ak junne it. ci jamono yi. abul qasim junne it. abul qasim. bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد من الكتاب bi fi teew ñu ngi fàttali suñu bopp ñu leen fàttali dégg ngeen saa yu ñu jàng léegi ci julli bi mu wax ni ñu zakkir in nafaati zikra sayazakkaru man yaxsha saalo ca sos yoo xam ne wa zakkir innama anta muzakkirun lasta alayhim bi musaytir illaa man tawalla wa kafa wax ne wa zakkir fa inna zikra tanfau lmuminin wax ne inna fi dalika la zikra liman kaana lahu qalbun aw alqa sam'ahu wa shahid fàttali boo ko déggee lu ñu waxal la ndax daanaka wax loo xam ne kenn su ko wax wala déggee su ko daanaka amut waaye na tur rek ñu jiital kii sunu bopp ci ndigle ak tere ndax bés bi moom lañu war a jëkk li ci aju loola moo di muuri koor yi ndax dafa di loo xam ne